wa tuxliqu anna biha ababa char wa taasir wa taqdi lana biha jami alxawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunia wal axira anta waliyuna wala tazaalu takunu waliyuna illa an tantahi alxayaat fa nicma almawla wa nicma alnasir أيها المشاهدون الكرام في داخل السنغال وفي خارج الوطن نرحبكم كالعادة fi kulli yawmi aljumaa wa naqulu lakum marhaban ahlan wa sahlan bikum wa nuhanni'ukum fi hadha ash-shahr al-mubarak wa nas'alu llaha azza wa jalla an yaqbala aw an yaqbala aydan du'aana wa ibadatana fi hadha ash-shahr al-mubarak wa ma zalika ala llahi bi aziz haa nahnu lyawma fi intidaarikum bi diqatin wa sururin wa baad naqulu lakum asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi leen di ziyaara ci àjjuma di ziyaara kilifa diine yi kilifa aada fu waay mën a ngi leen di ndokkeel ci weeru kóoru tedd wi ñu jóge di ñaan yàlla lépp lu ci waay jàmm yàlla nañu ko yàlla nangul waaye lépp lu ci waay fàggandiku ci lu baax yàlla bu mu niil yàlla nañu yàlla nangul suñu jàmm nangul ñu suñuy jëf di ziyaare it wax dëgg yàlla boroom kër gi muy Youssou Ndour di ko ndokkeel ci weeru koor wi di ko ziyaare di ko balu àq di baru àq waa kër gi yëpp commencé ko ci Mamadou Ibra Kane Alassane Samba Diop ñëpp caméraman yeeg euh, preneur de son yeeg ñëpp ñu ngi leen di ziyaara di ziyaara ñoom euh, Dorine Euh, Joséphine ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara di ziara ñëpp daal ñu nekk ci technique beeg ñëpp ñu ngi leen di ziara euh, fàttewuñu kenn waa ala kulli xaal di ñaan yàlla nag yàlla defal ñu ay déwén yu bare bare kenn bañ a manqué bi jaay sayyidul wujud euh, tey nag te ñu comme que wax dafay daf ñoo xaw a xat tuuti rek ñu ubbi téléphone yi muy vingt vingt 628 22 22. 88 628 22 22 di ziara di fàttali aussi beneen numéro bi muy waa bitim réew muy 00 221 33 841 22 99 00 221 33 841 22 99 incha allah lu ci waaye soxla ci numéro yooyu mën nga ànd ak ñun ci numéro yi incha allah ñu indi leen ci ay leeral. Euh, su ko defee ñuy ñëw ubbi waxtaan wi ginnaaw bi ñu ndokkalee jullit ñi ci weeru kooru tedd wi ñu jege di ñaan yàlla fu waaye ma ne ne dafa yëngu yàlla na yàlla nangul lu ci waay jaamu yàlla ko yàlla nangu lu ci waay sonn it yàlla na ko yàlla fulal mu nekk ay xewal yu bari wa ma zalika ala bi aziz waaye ñëw ci bataaxal yi nga xam ne fekk nañ ko fi seeni borom yónnee ko di ko laaj Ah, mbokk mi nee na dafay gént ku génn àdduna ba pare mu toog di waxtaan ak moom nee na ci biir waxtaan wi sax ki nga xam ne ki mu génn àdduna am nu lu mu ko jox ci wàllu xaalis walla yu mel noonu te moom génn na àdduna bu yàgg muy laaj ndax loolu baax na am déet man raa mayitan aw insaan raxala ila jiwaari rabbihi munzu qadimi zaman ñu jël ki ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ustaz salaamaaleykum waaleykum salaam ustaz na ngeen def ñu ngi fi sant bu baax ñu ngi leen ziare di leen baloo ak na yàlla na nga ziare dafa am eh, gerte yu ma doon laaj rek waaw bismillah damaa jontoon gis weer yi hmm? damaa jontoon gis weer wi weer wi. Mm-hmm. waaw beneen moom bi damaa jontu gis ay naat yu bëri si toolu xaal. ay. naat naat. naat. waaw si toolu xaal. Mm-hmm. Euh, léegi beneen bi sama soxna moom moo jontoon yor feebaru xel. Mm-hmm. sama soxna moo jontu yor feebaru xel sama soxna. Mm. waaw dafa jontoon yor feebaru xel wax moom xaar naa ko laaj. waaw ñetti gént yooyu la benn bi damaa gént gis weer wi. Mm-hmm. benn bi ma gént ay naat ci toolu xaal. Mm-hmm. Euh, benn bi eh, sama soxna moo gént yor feebaru xel. Mm-hmm. waaw léegi est-ce na mën naa am sa waaw bul coupé léegi waa régie dinañ la ko jox léegi incha allah. waaw ah, baax dinañ ci euh, ñëw léegi incha allah wala balaa ñuy ñu sori ñu ñëw ci mbokk mi rek ñu waxoon ne euh, dafa gént nit koo xam ne kii génn àdduna mu am lu mu jëflante moom. nit daal bu génne àdduna di jëflanteeg yow ci wàllu alal allahu alam dalaa jox alal walla boog dafa am ay kàddu yu ngeen aw ma yashbihu zalik day tegtale ne boroom sopp na lool ku koy bàyyil xel njabootam mooy bu njëkk bi ñaareel ba mën na amit ci biir njaboot gi am ay jafe-jafe yu tar fi daaxili usratihi suubatun mutaaddida laa tuaddu wala tuxsa yooyu eh, jafe yu bari day am ci biir njabootam mu bëgg ku koy nemmeekul ku koy bàyyil xel li mu bàyyi ginnaaw eh, min usratihi wa wasaayaahu ak ndenkaay yi nga xam ne bàyyi na ko ginnaaw ala kulli xaal bëgg it ñu ci bàyyi xel muy nekk ala xamatina bayna allazi huwa fi xayri alxayaat wa allazi raxala ila jiwaari rabbihi ñu bàyyi xel ci ñaari mbir yooyu muy la am solo lool beneen bi mbokk mi woote léegi neen dafa gént gis weer alxamaru ruyatul xamar fi lxulmi taqaddumun wa yusrun wa fatxun wa najaax min jami nawaaxi gis weer ci gént yokkute la bu fekkante ne nag borom dafa nekkoon ci zikr zikr isman min asma illahi lxusna aw isman min asma rawxaaniyin aw ilquddaamiyin aw talsam min altalasim fa fiihi taqaddumun min jami nawaaxi fekkee ne borom dafa daan liggéey tur yàlla wala di yu mel noonu xeetoo yu mel noonu mu ci yëkk yëngatu ba gis loolu ñëw ci ci loolu léegi incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah waaw soxna sa ñu ngi leen di ziar. maa ngi lay delloo ziar. alhamdulilah. alhamdulilah. alhamdulilah. man dama amoon gént yu léegi muy dox bi muy dox mu ngi ci escalier di wàcc. Mhm. noonu ma séen ko fi mu nekk na dafa lëndëm. Mhm. léegi ma daal maa ngi bokk ni sama benn doom bu jigéen. Mhm. ma naan ci kee la ma daal di tudd turam. léegi nag moom gisuma ma topp ko mu mu yéeg di yéeg ma man ne mu mel ne daf ma séen ma daal di turne li ma tourné li may waaj a cee man man man moom dañuy waaj a jàkkaarloo ma daal di làqatu. bi ma làqasoo mu daal di dugg ci benn place place bi la mi ngi leer nañ. Mhm. noonu ma ni ii waaye ci lan lay def fii ma gis ñun ñëpp naan ko monsieur si di jaar di turam. Mhm. léegi noonu ma gis benn ndaw su taxaw. Mhm. mu ngi taxaw noonu mu koy présenté naa leen kii sama soxna la. bi muy présenté ndaw suñu kooku sama soxna la ma ma dugg si ni ko laajoo da da nga amoon soxna di ma ko nëbb. noonu ma song ndaw si ñuy xeex. ma dóor ko xott te yére yëpp. ndax mhm. xeex na xeex bu métti. Mhm. noonu ma ma jógee ko ñun ma yow ki yëgoo ne woon sa sa ko dafa takk amoon am nañ ñett bant te yëgoo ko man leen xool leen rek ñetti bant te man yëgoo ma si dara. Mhm. léegi ma jógee foofu dugg si benn néeg ak sama doom bi ma téye woon sama doom bi ni ma yaay sama papa pareegul de mi ngi ñëw. man ko lan waa mi ngi ñëw fi muy ñëw mi ngi téye benn yar jàpp yar bi dama ko dóor maa ngi yóoxu. dóor ma dóor yi metti noonu mu tourné sama doom bi ma ànt na moom ci mu jàpp sama doom bi di dóor noonu laa yeewoo ma ne woon naa la woo laaj liggéeyam fii ndax jaaxal na ma mm-hmm. biig suba dina ma géntaat sama koo xam ne doomu jënd man maa ko jur doomu jënd la si moom mm-hmm. mu jàpp ko moom it di dóor xale boobu ñaari la mm-hmm. daa jaaxal na man daa tuuti dama koy gént mu ñuy dóor loolu daal laa bëggoon nga leeralal ma ko jërëjëf shukran ala kulli xaal dinañ ñëw léegi incha allah wala balaa ñu sori ñëw ci borom ki gént weer gént weer daal yokkute la moom ala kulli xaal ci góor bu dee ci jigéen nag mën na ko jural yeneen mbir waaye comme que góor la moo ko gis mën na ko jural yokkute ci jam ci fànn yu bari nag euh, waaye comme ni koy ko waxee rek bu fekkente ne. dafa doon def zikr wala wird wala yenn yenn asma min asmaillahi al uzma na ko jural wax dëgg yàlla ubbeeku bu yaatu ci wàll googu euh, beneen bi neen dafa gént euh, naat ci benn tool naat ak tool amrayni muxtalifayni fil xulmi wa sanaati bi bayaanihima euh, naat maa fi naat xayr naatu guddi amul yiw amaa nag tool moom bu meññee ba naat xayrun wa ni'matun tool bu naatee baax na su gàncax ga bare xéewal la su sëqee meññ baax na waaye nag su ñax ma woowee baaxul ma fi zalika xayra naat nag moom soobaat xat-xat la ci dundu doomu aadama bari aana lu ko nit ñi di laaj te du lu gën ci di ko gis ci gént waaw ñu bàyyi ci xel ñu jël ko ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum bi. waaw. bu baat bi yëkkati ko woon tuuti ñu gën a déggante bu baax. waaw ma ne maa ngi leen di nuyu damaa amoon ay gën. waaw bismillah ñu ngi lay fay. damaa gën doon benn jour ma nekk ak benn bopp. dama gëntoon benn jour ma nekk ak benn ma bu góor. Mhm. léegi ñu nekk benn euh, garabu tàndaar. garabu. garabu tàndaar. Mhm. léegi bu ñu fa am euh, benn euh, benn vieillard. benn benn bu mag benn paa bu mag. Mhm. léegi dañu doon kii dañu doon indi tàndaar bi waaw waaw paa bi dafa ñu doon empêché pour ñu bi. dafa leen doon. dañu doon dindi gendarme bi man ak sama benn mag. Mhm. léegi am benn veillard bu fi ñëw. Mhm. dañu tere dindi gendarme bi. mu leen koy tere. waaw. Mhm. am nañ ci saa waaye bëriwul. waaw après ma gis ko mu transformé nekk benn baobab bu rëy moom veillard bi. ma jël ay xeer di ko sànni. waaw foofu la yem. Mm-hmm. beneen bi dama jëntoon uh, ak sama benn uh, xarit bu ko. Mm-hmm. da ngaa gënt. beneen bi dama gënt man ak sama benn xarit mu bëgg liggéeyandu. Mm-hmm. léegi ñu nekk ci benn uh, endroit. am ay ay weey. mu ay. ay weñ ay weñ waaw ñu ngi doon ranger ay weñ yu bari. Mm-hmm. waaw léegi après man maa ne ko man damaa sonnoog damaa sonn mu ne ma yow da ngay sonnoog yow yaa moom weñ yëpp. nga ne ko yow da nga. ma ne ko damaa sonn parce que weñ yi dañoo bari trop. Mm-hmm. après mu ne ma yow yow yaa moom weñ yi man dama lay dimbali rek. Mm-hmm. après nag ma gis benn weñ ci ma dagg. nga gis. jël benn weñ ci ma dagg. nga jël benn weñ nga dagg mu dàkk ma dàkk ma ma daw. Ah, mu dagg la ma dóor waaw bëgg maa dóor ma daw. Mm-hmm. waaw loolu laa bëggoon laaj. baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah jërëjëf. Ah, shukran wa ala kulli xaal sanaati bi bayaani haulaai al axlaam waaye ñu ñëw fi ñu tollooloon sànq ci mbokk mi nee na dafa gént naat ci biir tool. naat bi nag ak tool yi am rey ni moxtalifay ni fil xol mi ñaaru mbir yu bokkul jëmukaay la nee na beneen bi gis na ne soxnaam dafa wér di dafa am feebaru xel sa soxna bu amee feebaru xel daal ubbeeku la ci moom baax na xéewal la bu yaatu laa yadullu anil maradi maa yuqaal maradul aqli tekkiwul ne feebaru xel lay doon waaye xéwal lay doon ci moom lu baax la mooy feebar boobu mu tudd léegi ci soxnaam waaye dañu sopp nag nit ki bu gis yenn yi mbir yu mel yu mel noonu nga togg ay ñam ci wax waa jullit sa kër jox leen ko mu nekk sadaxali wa sillahil karim waaye sopp nañ ñam yi na sell te baax nga sonn ci lool nag def ci sa doole ndax ca jëfandikoo ba ñu koy jëfandikoo ba di ci jëg seen bopp fihi ijaaba min kulli daawa ci la aaju gu faju nekkee euh, bu ñëwee ci jóge ci kooku kii mbokk mi moom nee na fa gis euh, borom këram mel ni ku jóge ci kaw ci jëm suuf wala mu jóge ci suuf jëm kaw ci benn béréb bu lëndam الظلمة الدامسة في الحلم صعوبات ومشاكل متعددة في حياة الإنسان lëndëm gu tar baaxul jége fu kawe wàcc jëm ci suuf kilaahuma ala xaddi sawa muskilatun ñoom ñaar ñoo yem xat-xat lañu waaye nag jóge ci suuf jëm ci kaw taqaddumun min jami nawaaxi jóge ci kaw daal jëm ci suuf jëm ci jóge ci suuf jëm ci kaw yokkute gu rëy rëy lay jural nit nañ ci bàyyi xel nee nit parce que gis na ko muy muy yéeg ci fu kawe foo xam ne fii dafa leer nañ a annuuru xayrun annuuru yusrun annuuru fatxun min jami nawaaxi leeru guddi euh, xat-xat la euh, day dindi xat-xat day dindi tolof-tolof euh, nit ki bu nekk ci xat-xat lu mu tar tar tar su gisee lumière na jàpp ne yàlla nga koy waaj a xeetali ca loolu ñu jël ko ci ligne bi te ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi ñu ngi lay ziar. alhamdulilah damaa gënt toujours damay gënt di rob. Hmm? damay gënt toujours di rëbb di rëbb. da nga gënt sa di rëbb. di rëbb. di rëbb yàlla fetal di rëbb yàlla bi. Mhm. damaa jigéen jëma benn bal ba pare ma di rëbb ma fetal kéyal bi ba pare. bu daala ma dem fekk nag ba mu doom ndaw laa rëy. lan nga doon rëbb. kéwél. kéwél. waaw bi ma ko dóoree bal bi dem fekk ndekete nag la. Mhm. waaw léegi nag ñu may pour ma fay ko. ay ay xale yu ndox bu feebar ma ma koy ñaanal rek ma koy ñaanal damaa gën sama sol yi rek def yaram nañ daal. koo doon ñaanal. sama waajur bu feebar ma moom laa doon ñaanal dama damaa gën mu def yaram nen. mu def yaramu nen. waaw. yooyu yooyu laa soxla. jërëjëf dinañ ci ñëw léegi shukran dinañ ci ñëw léegi incha allah waaye balaa ñu sori ñëw fi ñu tollu woon rek ci borom bataaxal bi eh, dafa gis leer borom këram nekk fu leer yiw la yokkute la ci fànn yëpp beneen bi nee na dafa gis muy wax ak beneen jigéen mel dañ ko wax ne ko daal sa borom kër moo ko takk mu xeex ci ak moom xeex bu metti mer ci am ci naqar nee na jëkkër ji dóor na ko ba dóoraale doomam ci gént gi alxusnu al amiq wa diq shadid fi lxulmi yetaxayaru faraxan wa surur fi xayaati l insaan gént daal am naqar bu jafe am tartar ci gént sa diggante ak sa borom kër yiw bari la takk jabar bi nag tekkiwul ne day takk jabar waaye di nga am lu am solo luy génne ci ay loxoom moom borom kër gi Eh, di ñëw ci yow bi ci gën a baaxati nag mooy dóor yi boroom kay buy dóor jabaram wala soxnaam xéewal la bu yaatu buy dóor doomam it yiw bari la koy jural ndax surtout nag bu dee doom waajur di ko dóor jëmmi jamono dina dox ba wërsëgu yaatu jóge ci doom ji di ñëw ci baay bi muy xewal bu am solo ci waajur wuy dóor doomam wala muy dóor soxnaam waaw ñu ñëw ñu jël ko ci ligne bi te door a ñëw ci loolu salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi ñu ngi leen di ziara. ñu ngi lay ziara bu wér. alhamdulilah alhamdulilah amiin yaa rabbi. damaa amoon nay gént yu ma géntoon ba ku ne. Mm-hmm. damaa géntoon sama oto réer. Mm-hmm. damaa géntoon sama oto réer. Mm-hmm. maa ko doon wër nag ñoo koy wër di ko wër ba dajeeg sama benn mag mu ne ma oto bi jàpp nañ ci ko sàcc mu nga ci dëkk sàngam. Mhm. foofu nag fla yeewu. Mhm. beneen gént bi damaa gént sama yaay mu génn àdduna ma gént ko ànd ak moom dox nii ba beneen meer boo xam ne dafa génnoon àdduna moom mu seen sama yaay taxaw di ko xaar naan ko xaaral ma boo ñëwee. ñaar téeméer yi ma defee woon ko ci ñëw sax ma jox la ko. kooku la sa waajur. waaw sama waajur bu jigéen. Hmm, ci loo ko fekk. damaa gént ànd ak moom ñuy dox nii maa ngi moom. ngeen hmm, di ànd di dox. waaw fekk moom daa génn àdduna. dañu hmm. ànd di dox léegi ñu seen beneen meer boo xam ne moom it dafa génn àdduna. waaye suñu mbokk dëkkandoo la woon. mu naan sama yaay waaxu fil boo ñëwee ma jox la ñaar téeméer yi ma defee woon. ma jox la ko. Mhm. léegi man loolu ma woon dara ma ne ah kon su ma bu ko joxee ñaar téeméer maa baat ko sama yaay jox ko ko. Mhm. waaye amaa ma yegg ci moom foofu lañ yeewoo. Mhm. ñetteelu gént bi sama jabar dafa gént ne dafa gént am doom. kan sa jab sa soxna. sama soxna waaw. mu ne bi mu géntee dafa am doom léegi benn xar bu mag bu ne woon ci gannaaw kër gi. mu mm-hmm. ne woon sax xar boobu lañ ko mujj rayal ci ngénte li mm-hmm. waaye nee na foofu la waaw moom lañ ko mujj rayal ci ca la mm-hmm. waaw nag fi gént yi laa bëggoon ku ma ko fi def baax na jërëjëf dinañ ci ñëw léegi incha allah shukran Euh, jërëjëf mbokk mi dinañ ci ñëw léegi incha allah waaye balaa ñuy sori ñi ñëw fi ñu tolloon sànq rek euh, ci ki wax ne dafa borom këram da ko dóor dóoraale ay doomam muy yiwu bari ci seen diggante ñoom ñaar euh, beneen bi mbokk mi nee na dafa gént nekk ak frère ci benn suufu garab boo xam ne bi dafa mel ni tàndarma lañ fa doon wut waaye mujjul antu nuñ ko bëggee woon nee na ñu gis fa benn góor gu mag boo xam ne da leen doon tere tàndarma ji euh, loolu moom bokk na ci li ko gën a jaaxal euh, achajaratu wa tamru kilahuma ala xaddi sawa bi chartin gis nga garab bu sëq ak tàndarma ñoo bokk benn bayaan garab gi ñu dul sopp daal ci gént mooy bi nga xam ne dafa wow koŋ ruus amul ay xob soobaatun ay jafe-jafe la waaye bu saqee daal am ay xob yu yaatu te naat lool xayrun wa niamatun yow la tàndar tàndarma dafa am solo lool ci gént baax na lu am solo la ñu ci ligne bi ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum salaam. ah kay ngi ziar. Uh-huh. waa kii dañoo bëggoon nag nga firi suñu benn gént. Mm-hmm. Oh, waaw man damay faral di gént daal euh, bu ma tëddee ba guddi rek dafay mel ne sama ay bëñ dafay dafay dafay wadd lu bari mm-hmm. di waaw di génn di ñëwaat mm-hmm. affaire bi nag dafay dafay étrange si man mm-hmm. waaw bu ma waaw bëñ yi daal day deñ di deñ di deñ di wadd di wadd di wadd bu ma paree mu ñëwaat ci gént gi mais bu mujj bi ci laa sog a gisaat mu am sax deret mais daawut naa ci waaw loolu daal lay faral di gént. Mhm. ak euh, ak beneen gént boo xam ne sama waajur bu góor dafa génn àdduna. Mhm. waaw waaye chaque jour damay gént mu naan ma ñëwal fii ci man waaye bu ma ko bëggee bu ma ko bëggee jege rek mu ne ma xamal ne maa ngi ci sa wet chaque nekk ma dew ma mhm. fenn xamal ne maa ngi ci sa wet chaque jour. waajur bu jigéen. sama waajur bu góor. waaw dama koy faral di gént daal lu bari ay temps dama ciy gis sama waajur bu jigéen mu muuru nii muuraay bu weex. Mm-hmm. naan ma seen papa demul fenn mi ngi ci seen wet. chaque mm-hmm. jour sama sama papa jooju day chaque jour mi ngi ci sama xel wala ma koy gént mënu ma tëdd même bu may nelaw bëccëg tamit loolu la may wax day ñëw taxaw ci sama kanam. kan ci sa waajur bi waaw sama waajur bu góor bi. Mm-hmm. waaw ñaari gént yooyu daal laa amoon ci. jërëjëf <coughs> jërëjëf wa ala kulli xaal dina ci ñëw léegi incha allah. Ah, balaa ñu sori ñu ñëw fi ñu tolloon léegi ci mbiru tàndaru bi ak garab gi muy lu baax lool ah, beneen bi mbokk mi nee na dafa gént benn xaritam mm, ñuy liggéey ba ci ni béréb boo xam ne dafa am ay weñ nee na su mu sonn ci lool waaye nag li ko jaaxal mooy am na ci weñ boo xam ne bii sax da ko dagg ci loxo gis nga weñ moom yi ñuy defaree oto di ko defaree usine ak yu mel noonu weñ yooyu lañuy wax ndax moo gën ci gént gént gis weñ moo gën ci gént li la koy wan nag di la ko firndeel mooy alquran jàngal nañu ko yàlla ngi ñuy wax ci alquranul karim muy bismillahi arrahmani arrahim wa anzalna alxadida fihi bashun shadid wa manafiun linnas wa li yaalama allah man yansurahu wa rasuluhu bilxaybi inna allaha qawiyun aziz hadihi al aya alkarima alsharifa tadullu ala cheyin mufidin ama yataallaq an ilxadid wa yadullu ala manafici ilxadidi fi lxulmi lii day tegtale ne wa ala na amaana dagg-dagg bi dagg ba deret di sotteeku alal la joo xam ne balaa nga ci jot day metti balaa nga ci teg loxo yi di sonn dagg-dagg bi daal moo ci gënal woon waaye alxadid bi nafsi alxadid nicmatun wa yusrun weñ daal xéwal gu yaatu lay jural nit wa ala xaal nañ ci bàyyi xel euh, mbokk mi naan dafa gént moom it euh, gént ku ko jaaxal lool mu bëgg ñu indil ko ci ay leeral waa ñu jël ki ci liñ bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam sëñ bi. salaam. sëñ bi ñu ngi leen di ziara. Ah, am benn gént bu bëggoon nga firil ma ko. waaw boo yëkkati baat bi tuuti mu gën la dégg bu baax. maanaam dafa benn gént bu ma jaaxal. ma mm. bëggoon nga indil ma cay leeral. maanaam mm-hmm. damaa maanaam nekk suñu dëkk. Mm-hmm. suñu dëkk puisque saa nekk seen kër. waaye suñu dëkk quoi. seen puisque nekk moom. Mm-hmm. bitim réew laay nekkee saa ah, waaw ba ma nekkee ci dëkk bi nag maa ngi toog nii ñu maak samay samay rax ni toog nii bu mu yàgg am yeneen yu bëri jóge beneen dëkk ñëw suñu dëkk bi. ak say xarit ah non non non non sama rakk rek ñoo nekkoon ak benn mm-hmm. euh, xaj bi. li mm-hmm. ñëwee nag doon ñu bousculer noonu comme ça. Mm-hmm. après maa ngi yoroon sama portable sama portable bi euh, fu wadd rek yi nag sama ak sama rakk bi ak beneen xam bi ñu may dimbali pour far affaire yi. Euh, bu ñu faree lépp bu mu pare moo jógee foofu dem di ñibbi. maa ngi ci xaw a gëdd sama rakk tuuti puisque yàqamtuwul loolu noonu quoi da xaw a tayal ci affaire yi fa jógee noonu di ñibbi nag romb diggante ñaari kër yu xaw a jege yow tuuti nii rek romb foofu benn maire mu nuyu bari maire bi wuyu fay ma après mooy rombee meer bi nii rek avant ma koy jàll nu mu toggee maire baa ngi doon toog noonu di lekk ko di lekk xaw ma day reer affaire yi bon ba ma koy romb noonu rek ndek mu mu woldoo woon sër bii noonu ci wul baaxul noonu quoi maa ngi gis ne góor la en fait du góor moo nekkee noonu quoi. waaw mhm. ah, waaye nag moo continuer ci affaire boobu affaire boobu nag tiital ma à la fin nag ci laa yeewoo ko loolu laa bëggoon nga firil ma ci. Mhm. jërëjëf. jërëjëf incha allah dinañ ci ñëw léegi ci laaj boobu incha allah euh, balaa ñu sori ñëw fi ñu toll woon léegi mbokk mi. nee na dafa gént gént gu ko jaaxal dafa gént gis yaayam te mu génn àdduna ñoom ñaar ñi ànd di dox euh, ci biir dox bi mu xamal ko ne ko dina ko jox dara ci alal wala yi mel noonu nee na loolu moo ko jaaxal lool bari aanal lu muy gis waaye juram daal mel ni ku ko koy jox alal wala mu am kàddu yi mu koy eh, dénk alwaalid awil waalida fil xulmi sawaan raayta alwaalid awil waalida alladi raxala ila jiwaari rabbihi aw allati raxalat ila jiwaari rabbiha kilahuma ala xaddi sawa yadul ala xusnin amiq wa mashakil fi daaxili usratihima gis leen jëf teg ñoom ci yenn mbir yi day teg ne seeni njaboot am na tolof tolof seeni biir njaboot am na tolof tolof ci seeni biir famille it am na ay jafe-jafe mooy tegtale sa waajur bu génn àdduna nga di ko gis euh, ci gént ci xaal yi mel noonu nee beneen bi it gis na soxnaam am doom mu reyal ko ak xar loolu it wax dëgg yàlla xayrun wa ni'matun wa yusrun xéewal la yokkute la ci diggante moom ak soxna soosu mu ko reyal Ah, balaa ñuy jël ci sori ñuy jël ki ci liñ bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi ziar wér. alhamdulilah. ah dama amoon ñaari gént bu bëggoon ko firil ko. waaw bu baat bi jógoon tuuti rek ñu gën a déggante bu baax. waaw benn bi. Mhm. dama euh, comme ci ci guddi dama dama gént gis benn ci benn koo xam ne jigéen la quoi. Mhm. mu mel ni luy attaqué sama soxna quoi. mel ni. waaw ah, mel lu koy attaqué ñoom ñaar quoi. attaqué. waaw mel lu koy li ñuy xëccoo daal ci bunt bi daal. Hmm. moom day xëcc pour dugg ci kooku xëcc pour dugg ci biir ci biir néeg bi. moom ñuy hmm. xëcc soxna mi ñuy pour génn. Hmm. moom xëcc na ba ba ba dugg ba dugg ci ni mais man rek man dama wane ko eh dama ne eh, bàyyi nag daa ba daa man la jëm si woon daal. ma ne ko eh ma ne ko eh nag man man foofu gis naa ne damay yeewu parce que ma koy wax loolu nelawuma quoi. waaw mm-hmm. ah, mais ci beneen kii maa ngi doon naan nelaw mais bi ma wax loolu nag foofu laa yeewoo après mu bàyyi nag. waaw mm-hmm. ah, foofu la bàyyi ak jigéen bu mag la daal. waaw mm-hmm. ah, beneen bi. beneen bi dama ñëw comme man maa ngi fii ci Mali quoi. léegi dama gis dama euh, dañoo nekk ci benn mel ni benn benn place daal. léegi place bi xam naa borom ñaari place la yor. mais mm-hmm. benn bi bi nekk na dafa am lu mel ne ndox fu ñu fu ñuy sangu daal mm-hmm. mel ni piscine daal léegi man ci ndox mi mais nag moom maa ngi as ci ndox ci biir quoi su mais nit ñi ngi dugg ma ci biir quoi mais maa ngi mm-hmm. as ci ndox mi nii di sang di sangu quoi eh, shukran wa ala kulli xaal dina ñëwaat léegi àndaat ak ñun xam naa ligne bi moo ko xawara ci rek waaye dina àndaat ak ñun léegi ci kanam incha allah eh, mbokk mi nee na dafay gént moom it gént ko jaaxal neen day gént mel ni ay bëñam dafa am yu deñ di dellusiwaat ba ñoo xam ne day deñ ba pare di dellusiwaat fa mu nekkoon ca palaasam mu jaaxal ko lool bañ buy deñ bu dañee spécial te dellusiwaatul palaasam dangay dégg nit ko wàññeeku waaye bu fekkee ne dafay dem génn ba si yàgg mu ñëwaat palaasam feebar la buy nekk ci nit boo xam ne bii day jaabante di dem di ñëw tey mu feebar suba mu tane tey mu tëdd bu ëllëgee mu tane mooy bëñ boo xam ne bii day dañ ci palaasam di fa delluwaat feebar la boo xam ne bi du mën na laa bañ a tëral tëral ga ca war waaye du la bàyyi bàyyi gi ca war maanaa dangay tane tuuti tëddaat tuuti tane tuuti tëddaat tuuti mooy bëñ boo ne dafa nekk ci bërëb génnaat fa di fa delluwaat nañ ci bàyyi xel ah, beneen bi ci tegu it wax dëgg yàlla mbokk mi moom it neen dafay gént gént gu ko jaaxal nee na dafa gént euh, di rëbb wala boog doomam di rëbb ci àll bi ibnuhu kaana yastaadu fi lxaabati fa rama bundaqiyatahu euh, fa wajada fi dalika mais aw ma yasbihu dalik wa baada dalika taxayara ñu jël ki ci ci laaj boobu salaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam ah, ah, yaa ustaas ñu ngi leen bismillah waaw dama ay gént yu bëggoon laajte mm-hmm. en fait sama jëkkër moom nee dafay faral di gént ay jaan yu bëri duñ ko def dara nag mm-hmm. gaan yi dañuy romb rek. Mm-hmm. beneen bi nee na moom ay at a ngi nii même personne yi rek lay gént. Mm-hmm. chaque jour eh, même nit yi rek lay gént. Mm-hmm. waa beneen bi nag man la maa ko gént. dama gént sama doom ma yeewu gis benn nag mais eh, niroowul ak nag yi may gis parce que bii moom dafay spécial. kan moo leen gis. man maa leen gis sama gént benn nag la. Mm-hmm. ma gis ko après mu commencé di dàq nit ñi ñëw ba sama doom mm-hmm. yéeg ko di xëcc mbubbam eh, man si biir gént bi gis naa ne daf ko doon waaj a lekk sax mais mm-hmm. fi may fi may xëccee di woote ndimbal pour ñu xëcc ko foofu eh, sama si laa yeewu beneen bi mooy dama gént tamit kenn ka nga xamante ne bopp bi dafa dafa dafa tàkkale ko ak ak baat bi dañ dañ dañ dañ bi. Mm-hmm. falaa yeewoo nag. ku góor ku ñu dagg boppam. waaw ku góor ku ñu mm-hmm. jërëjëf yooyu dinañ ci ñëw léegi incha allah. Euh, balaa ñuy sori ñu ñëw fi ñu toll woon léegi ci mbokk mi mm, li mu laajoon sànq nee na dafa tiire fetel di rëbb ci àll bi wala boog doomam mu daldi dal jam kéwél nee ci noonu kéwél gi dafa mel dafa soppaliku nekk nag euh, mu jaaxal ko lool boo jamee kéwél indi ko ci sawet walla nga yóbbu ko fa nga nekk xéwél la bu soppalikoo nag xewal la joo xam ne ji ni muy ñëwee noonu lay génnaate sa loxo du fa toog soppaliku bi daal moo ci gënul ndax soppaliku bi day day tegtale walaw kaana xayran laa ye laa yaduumu ala yadihi yiw woowu du yàgg ci loxoom ni mu ñëwee noonu lay demaate muy lu jara bàyyi xel ah, beneen bi nee waaye juróom wu góor dafa gént di ko ñaanal waaye mu mel ni dafa wéradi nag mu di ko ñaanal waaye da ko gis mu def yaramu neen yaramu neen nag qul na zalika miraran wa takrar man raa nafsahu uryaana al fa zalika yadullu ala maradin fi jismi l insan yaram lay jural nit moom yaramu waaye nag ñaanal sa waajur moom fiihi xayrun wa fiihi yusrun yiw a ngi ci xéwal mbokk mi moom nee na dafa gént yor oto mu réer ko mu di ko gis mu di ko wër ba gis ko ci loxoy keneen oto bu réeree nga di ko wër tekkiwul ne oto bee réer nga di ko wër yadullu ala suui tafahum bayna bayna rajuli wa wa mraatin uxra day tegtale ñàkk déggoo diggante góor ak jigéen mooy oto bu réer dañu ci ñëw léegi balaa ñuy sori jël ki ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. dama amoon ñaari yoo xamante ne damaa bëggoon nga firil ma ko. Mhm. ndax benn euh, gént googu moom yàggoon na tuuti damaa géntoon euh, euh, yàlla suñu boroom laa géntoon. Hmm? suñu boroom laa géntoon benn jour. Hmm. nga xam ne damaa géntoon ñun ñu nekkoon ci benn magasin. magasin bi nag ñu doon xeex xeex xeex bu metti ba génn nag ñu jam ko ci mu génn àddina léegi nag man nag ci biir gént gi kooku génn àddina ak euh, keneen ku góor ñun ñaar ñu góor ñi ak man damaa dañoo dem dañoo dem euh, man dafa mel ni dama dee ci biir gént gi dem yi si suñu borom après nag suñu borom nag duñu posé question boobu doon ñu laaj nañu euh, ak problème bi ni mu demee ni ñu indi fii léegi nag mu léegi ma koy expliqué na ko nii kii ku ko doon ku ko rey man xam naa kan la man nag su ma delluwaatee dinaa fexe ba rey kooku léegi nag ci biir gént gi nag affaire bi nag dafa xaw a jaxasoo ma daal di dellusiwaat nag ci àdduna bi après nag man nekkaat ci même magasin bi après benn euh, waa ji nag ñëw ci ka rey ñëw ma waa kañ du koy rey ni après nag man ak moom man ak waa ji ñuy xeex xeex bu mét ba benn ma nag waa ji dafa ma bëggoon a jam après mu wëlbati nag jam ko paaka bi après nag deret ci bëri foofu yépp léegi foofu nag laa tiitee ci nelaw yeewu léegi nag beneen gént gi nag damay faral di gént sama doom ji ma koy boot yore xale daal tout le ma koy yore benn jour nag dama jéemtoon ma mu mel ni dafa dama ko téye nii sama kaw de ma jéemt dafa mel ni dafa daanu ci suuf ba cicc nelaw yeewu fekk xale bi mi ngi sama kaw mm-hmm. ma doon laaj loolu nag nga firil ma ko ndax affaire boobu jaaxal na ma waaye mm-hmm. jërëjëf jërëjëf shukran ala kulli xaal dinañ ñëw léegi incha allah balaa ñuy sori waaye ñu ñëw fi ñu toll woon léegi rek ci mbokk mi eh, am lu mu doon laaj ci wàllu gént gi ñu bëgg ko leeral ba mu leer muy mbokk mi ne dafa waaye juróom dafa nekk da ko doon ñaanal mu gis ko mu def mu neen te yar mu neen wéeru du yaram la xol naa zalika miraaran nañ ci bàyyi xel Euh, beneen bi it mbokk mi moom danañ dafa gént gént ko jaaxal mu bëgg ñu indi ko ci ay leeral moom itam euh, mbokk mi naan dafa gént président de la république mu di ko jox alal nee na loolu daal bokk na ci li ko gën a jaaxal nee na gis na président de la république mu du ko jox alal ju bari xaalis bu bari xewal la bi chartin mooy ci condition condition bi mooy bu fekkente ne xaalis bi du xànjar du ay weccit yiw la baax na xewal la waaye bu fekkente ne daal eh, kayit yu bari la moo gën waaye bu dee weccit baaxul weccitu guddi moom yadullu ala faqrin azim wa diqin shadid weccit ci gént moom euh, ñàkk lay tegtale ak xat-xat baaxul amaa nag bu fekkente ne xaalisu kayit damoom moom yiwu bari la lu baax la am na solo lool euh, suñ jógee ci boobu ñu ñëw ci mbokk mi woote woon sànq moom it moom it di laaj gént ko jaaxal mbokk bi neen day dox ba si yàgg ci benn village maanaam ci benn dëkk kaw nekk fa ak ay xaritam jékki-jékki portable am daanu lu mel ni lu yàqu nee na ba tey gis na benn jigéen bu def yaram eh, bu bu xaw a def yaramu neen ñi jël ko te ñëw door a ñëw ci loolu salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. waaw soxna si ñu lay ziara. ñu ngi delloo bu baax kay baax. bismillah. Euh, ñaan sëñ Tuubaa guddal fan gi. amiin yaa ilaahi. wéeral cër yi te bi. amiin yaa ilaahi. léegi man dama amoon quelques demandes rek yu may laaj. Mhm. fan yii damaa gént sama yaay. Mhm. di ma jox jën boo xam ne dafa weex ma koy lekk. Mhm. waaw bi ci topp mooy. Mm-hmm. damay faral su may def ay salaatu na bi mm-hmm. saa yu ma tëddee daal damay gént daal day am li may wan. Mm-hmm. bi ci mujj mooy dama gént euh, ci benn kër boo xam ne daa am benn meer bu feebar. Euh, feebar bi yàgg sama benn cousine wax ma ne ma diw de daa dafa gaañu sax. ma ne ko xale yi kon tee nga leen andi ci kër gi. ma dem di jëli xale yi fekk maire bi naka te gaañuwul ma ni ko yow nii da ngaa tiit rek. mais bi ma fa toogee ci kër gi. après ñu ngi may wan ni. Mhm. maire bi daal mi ngi génn àdduna mi bi daal. Mhm. waaw bi ci des damaa gént sëñ Saliou radiyallahu mhm. mu may wax dee ma sant. mu lay. mu may wax ci ay kàddu ne ma dee ma sant. waaw léegi sant gi nag ma xamul naka laa ko war a mën a defee. Hmm. waa. Hmm. ataw bu ci bëri boo xam ne tamit damay gis tamit dof boo xam ne daf may sonal daal jàpp ma damay dóor ba may bëgg dee. Hmm. bu ma dawee làqatu feneen it tamit mu kar ma ci beneen yoon rek di ma sonal. waa dof bu góor nii dafa xaw wéradi nii nag. waa laaj yooyu daal Pape Abdou Karim laa doon laaj. jërëjëf. waa kay jërëjëf Ba. dina ci ñëw léegi incha allah. jërëjëf jërëjëf Ba. Euh, shukran ñu ñëw ci fi ñu toll woon léegi ci wàllu portable ci gént su daanoo ci suuf tas yàqu baaxul soo ci jëlee woote ci wax ci sa soxla baaxul portable ci génte yasdaadu taaxur an xosol rizq fi l insaan portable day indi yéexi-yéexi am am ci wërsëg moo xam boo yor la moo xam bu daanu yàqu la moo xam bu bees nga jënd ay portable daal ci gént day indi yéexi-yéexi am am euh, maa fi zalika xeyru ñu bàyyi xel ci loolu euh, mbokk mi ne dafa gént ay jigéen yuy xeex ci biir mu gis yi wax dëgg yàlla ñuy ñëw di dox seen diggante te nanguwuñu ñaari jigéen yuy xeex alxitaal bayna imraatin wa imraatin innama tadullu ala tafahumin azimin fi ma baynahuma xeexu ñaari jigéen déggoo la yiw la jàppante la yërmanante yërëmante la ci seen biir muy la am solo lool euh, lu jara bàyyi xel euh, mbokk mi nee na dafa gis it waajuram walla bokk xaritam jox ko jën bu weex yaayam jox ko jën bu weex jën ci boppam xayrun wa niama assamako fi lxulmi xayrun euh, la kaana xayran aziman indama asbaha hadha samak bayda al lawni gën naa baaxati nag bu mu nekkee couleur bu weex muy lu am solo ñaare ba nee na bare na lu muy def salaatu ala nabi te saa yu ko defee am yu ko yàlla woon salaatu ala nabi nag moom na salaat ala nabi baabun maftuxun ila llahi azza wa salaatu ala nabi su doon bunt la ma ne moo mooy caabi ju mag ji xam ne fi leen ñi di jaare pour àgg ci seeni borom muy salaatu ala nabi jël ko ci ligne bi tuuti te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam ñu ngi lay ziara. Ah, ngi maa ngi wootee yaa ngi wootee. Djibouti Djibouti. ah Djibouti ana waa Djibouti. fi tàngaay métti rek. alhamdulilah. <laughs> Euh, mm-hmm. ma ne ko visité. ci biir kër gi. Euh, ma dem di visité kër gi dama ko dama ko war a jënd ma dem di ko visité. Mhm. ma seet ay sindax ak i ay unk. nga fekk fa. sindax sindax ak unk ba gis ay sindax ak ay unk. Mhm. maanaam ak i limbi yu bari quoi ma doon laaj ne yooyu lan la. sindax ak unk. waaw ci biir kër gi dama ko war a jënd mais ma dem di xool kër gi naka la mel. Mhm. ak ma dugg ci biir ci biir néeg yi ma gis ay unk ak ay sindax. ci biir kër gi ak. Euh, ak ay jërëjëf ma euh, shukran dina ci ñëw léegi incha allah waaye balaa ñuy sori ñi ñëw fi ñu euh, ñi ñëw fi ñu toll woon léegi rek euh, ci mbokk moomu ne dafa gént gént gu yéeme googu mu jaaxal ko lool. ñu di ko xamal ne daal muy lu am solo lool lu jar a bàyyi xel eh, lu am solo lool ci moom kii nag mbokk bi neen dafa gént ñu dagg boppam wala boog ñu dagg bopp benn waay bopp bi tàggali ko ak yaram bi nit daal su ñu daggee boppam ci gént mu tàggali ko ak yaramam bari aana loo xam ne lii commencement dundam day neex waaye mujj gi day bari jafe-jafe lu mu gën a dund gën a yokk ay atam di di bari ay jafe-jafeem di di bari mooy bopp bu ñu dagg day xaaj dundam ñaari xaaj commencement bi day jafe day neex am solo lool waaye mujj lu baax muy lu jar a bàyyi xel waaye ñuy ñëw ci mbokk mi nga xam ne woote na léegi nekk Djibouti nee na dafa gént di ñëw ci benn kër di xool kër gi fekk fa ay sëndax ki unk ak ay lënt kër bu tilimee ba mel noonu booye boo boo ko moomee defar ko ba mu baax te xam ne yiw a ngi ci suñ la soo ko doon jëndit booye boo nga jënd te xam ne baax na kër gu tilim bari unk bari salte bari tolof tolof bari yu neexut a xool fii fii fii zalika xayrun bu bari mu ngi ci kër daal bi baaxul mooy bi rafet te jekk nga xam ne ku ko xool ne kër gi rafet na baaxul waaye kër gi tilim ne daal ñaaw na salte na yiw la kon boog na bàyyi xel ni ci kër googu yiw a ngi ci lu baax la xéewal la jàmm rekk moo ci nekk muy la am solo waaye su ko defee xam naa ni waxtu wi duñu ko may ñu mën a àggale toon laaj ñi fi laaj yëpp wa ala kulli xaal ehm, di it jégalu mbokk mi woote woon di ñaan ñi indil ko xam su naqaaf ak li ci nekk ci ay bayaanaat ay njëriñ na nga koy jéggalu incha allah ba ajuma bii di ñëw ñu mën ko indil xamsuuna xaaf ak mbokk mi laaj ñu indil ko bayaan ci xismil barxuuti ndax def ci buntu da ci liggéey benn bunt nee na bunt bi ñu di ko wax bi yaahin wa yoohin wa yaa yoohin wa yaa xayra rabbin wa yaa manel arzaq min jawdihi namat mu ñu diggal ko ko nag mu bëgg xam ndax baax na ak nu mu koy liggéeye ak nan la ciy toll ak lan moo ci nekk muy baytu bu nekkoon ci xismil barhutil azami dinañ ci ñëw incha allah ajuma bii di ñëw ñaan yàlla ñeen ñëpp ñu tase fi kenn bañ a manqué bi jaahi sayyidil wujud allahuma rabbi yaa ilahi la yantahi ilayka basaru naadirin fi majdi jabarutika irtafaat an sifaati almaxluqin sifaatu qudratika ya allah wa ala an zikri zakirin kibriya wa azamatika ya allah fala yantaqis ya ilahi ma aradta an yazdaad wala yazdaad ya ilahi ma aradta an yantaqis la ahada ilahi shahidaka xiina fatarta alxalq ya ilahi wala nidda wala didda xadarak xiina baratu nufus kallatil alsun ya ilahi an tafsiri sifatik wa anxasaratil aqul an kunhi maarifatik fa kayfa yusaf kun hasabatika ya rab yaa man qaala li Muusaa idrib bi asaaka albahra fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawdi alazim salli wa sallim ala ayni zaatika alaliyati bi anwaai kamalatika albahiyati fi xadrati zaatika alabadi an abdika alqaaimi bika minka laka ilayk salaatan ilaahi taftax lana biha ababa rida wa taysir wa tuxliqu anna biha ababa shar wa taasir wa taqdi lana biha jamia alxawaij wa takuna lana biha yaa ilaahi waliyan fi dunia wal axira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 wa salaamun ala al mursalin alhamdulilahi rabbil alamin ñu jéggalu lool incha allahu waxtu wi xat wi ba jëmmi jamono incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.